والهدي صراط élection présidentielle nag mbiru réew mi la te réew du kër réew du quartier réew du région réew 18 millions de personnes la seet ku di jiite kan moo yor seeni destiné yàlla dafa dogal nag fukki candidat ak juróom-ñeent la am ci biir fukki candidat ak juróom-ñeent yooyu kenn ku ne mën nañ ko waxal mooy kan kenn ku ne mën nañ ko waxal li mu liggéey waaye daf ci am kenn koo xam ne dañ koy seppi kooku ñuy seppi nag mën nañ ne Sénégal moo ko yar ndax doon na chef de service doon chef de division doon directeur général doon ministre doon premier ministre doon député kooku nga xam ne jaar na ci administration sénégalaise yëpp kooku nga xam ne nekk na ministre des affaires étrangères nekk na ministre des finances di lijjanti koppar réew di ko di dem di wax suñu naataangoo yi bitim réew buñ ko dénkee réew mi teg nañ ko ci loxo yu wóor kooku mooy kan kooku mooy Amadou Ba cinquième président kon yéen waa Liberté 6 yéen waa Baraka ñun ñu suñu seeni doom moo xam Tamsir Soxna moo xam Zahra Iyane moo xam sarki seen ay moo xam mbooleem camarade yu nekk ci caravane bi yëpp ñu ngi leen di ñaan keroog dimanche le 24 mars ñu voté massivement Amadou Ba mairie bii ñu dénk waa opposition bi rek war na tax ñu voté Amadou Ba tekkuñu fi dara tabaxuñ fi dara teguñu fi xeer te kat defuñu fi dara ñii ku leen dénk réew mi dañuy jël capital bi yóbbu ko Ziguinchor est-ce que bëgg ngeen capital bi jóge fii dem Ziguinchor est-ce que bëgg ngeen ñu génn zone franc CFA li mel ni dañuy yóbbu ba ci bàll bi teg ñu ci jullum ñun kese kon nag waa Liberté seeni doom dellu si waat nañu le 24 mars bulletin bu bi boppu bas bi ñu voté Ba cinquième président waa marché bi nag wóolu naa leen xam naa ne fii ñooy borom ñu leen di di leen gërëm. tey nag dañ ñëwoon fii tey man ak suma sœur Zahra Iyane Thiam ak madame Fanta ak Mbagnick ñëw tey pour dundal Sicap parce que tey Sicap ku xam tey gis tey mbooloo mi topp. xam ne tey Sicap dugg dund na lu ko waral yëpp le candidat Amadou Ba euh, daf ma woo ne ma Tamsir mu naa mu ne ma ku si nekk ñun ñëpp nañ bàyyi si li ñuy def ñun ñëpp ñu àndandoor bokk ndey bokk bàyyi pour liggéey pour le candidat Amadou Ba au moins mu am ndam au niveau de la Sicap alors depuis un certain temps ñun ñëpp ñu ngi si terrain bi vraiment li ñuy ñaan waa Sicap mooy tey amadu Ba amadu Ba Sicap la Amadou Ba Parcelles la amadu Ba Dakaaru la euh, nit koo xam ne la ku jub la ku yaru la ku mun liggéeyam la parce que tey fu mu jaaree yëpp c'est un inspecteur de impôts devenu directeur général des impôts en même temps ministre de l'économie et des finances nekk ministre des affaires étrangères nekk premier ministre yaakaar naa ne kooku liggéeykat la te suñ demee ba tubaab yi ne ko moom c'est le meilleur ministre finance finances de l'Afrique de l'Ouest kon war neen xam ne kii du cuune donc président Macky Sall aussi du cuune parce que moo ñu ko tànnal alors depuis bu ñu ko tànnalee aussi ñu ngi si gannaawam ñu ngi liggéey pour victoire Amadou Ba le 24 mars au pré euh, avant 19 heures yëpp nañ dégg bii Amadou Ba et je j'appelle à ñun xale yi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp nañ ñëw. ñu àndandoor ñu liggéey pour euh, victoire Amadou Ba 24 janvier man loolu laa amoon wax ak tous les responsables le 24 mars tous les responsables de la SICAP ñu ngi leen di la main ñu bokk ndey bokk baay parce que lii affaire bi du affaire kenn affaire yi Amadou Ba la loolu laay ñaan doomi réew mi lañ doomi doomi SICAP lañ nañ góorgóorlu fexe au moins pour la première fois Amadou Ba dégg fi wiiw tey ñun waa Sicap Liberté comité électoral Sicap Liberté bi moo daje di def caravane gannaaw bi campagne bi ubbee ba léegi ak lu jiitu campagne bi ñu ngi woon ci terrain bi point focaux yi nekk ci quartier yi ñu ngi ci terrain bi di liggéey liggéey bu am solo di def proximité tey nag liggéey boobu yëpp la ñu dëxañandoor ànd ak buro comité électoral bi yi nga xam ne Fodé Ndiaye moo doon coordonné activité yi ànd ci ak présidente Fanta ak Mbagnick juuf ak mbooleem nag euh, point foco yi nekk ci quartier yi moo xam Liberté 6 extension ba Liberté 6 en passant par 5 4 3 ak Baraka liggéey boobu nag ñu def ba nga xam ne àndandoor nañ tey mu nekk point culminant ñuy fësal euh, suñu yéene ci waa Sicap ndax euh, bu ngeen seetloo fii doomu Sicap rek a fi nekk te du njël du buleet ñun ñi toog fii ñuy dem toujours ci suñu dëkkandoor waa Sicap yi pour di leen tàllal loxo ñu àndandoor fal tabb ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite imma suñu gox imma suñu assamble imma suñu réew gis nañ nag ne élection locale yi passé waa Sicap dañu jox mairie bi keneen élection législative ñu def loolu waaye ndokk bi nga xam ne ne ñoom ci seen bopp ñoo dem ba ëlbatiku gis ne def nañu erreur te élection présidentielle yii di ñëw le 24 mars fas yéene nañ jox seen carte Amadou Ba li may wax du wax pour neexal ndax ñoo àndandoor ci caravane bi te gis ngeen nit ñaa ngi seen biir kër yi ku nekk di jubile naan Amadou Ba Amadou Ba kon li ñuy ñaan mooy ginnaaw bi responsable yëpp dafay taxawaay bu mucc ayib ñuy jiital ci responsable yi def taxawaay bu mucc ay Tamsir Soxna parce que ñëpp xam nañ ne doomu Sicap lañ xam nañ taxawaay bi mu fu am xam nañu aussi digganteem ak le président Amadou Ba kon ñun ñëpp bu ñu boolee suñu doole taxaw ànd ak waa Sicap li ñuy ñaan mooy le 24 mars vraiment ñu am un score fleuve jàpp nañ ne ci li ñu gis ci parrainage bi surtout parce que vous avez suivi le parrainage avec nous ci parrainage bi ak ci proximité yi point focaux yi def te amuñu seen fay gis nañu adhésion bi nga xam ne population Sicap yi def nañ li ñu gën a neex nag mooy adhésion bi am au niveau national le candidat Amadou Ba amul benn région boo xam ne dem na fa ci weeru koor gi de 9 heures à heures nit ñi tooguñu di ko xaar pour mën a wax ak moom pour mu wax leen ci prospérité partagée pour mu wax ñu ci président de l'emploi des jeunes bi mu bëgg nekk pour mu wax ñu ci les femmes yi nga xam ne seen autonomisation gi jëlee na ko nano ak micro yóbbu ko macro crédit mais surtout pour ñu wax ñu en termes de politique sociale et de fin de l'injustice sociale yan jéego la ci fas yéene def ci tënk Amadou Ba nee na PSE bi ñëw na c'était à l'horizon 2035 la ñu wax ne dina am émergence moom indi na ko ba nee na également il fera plus vite il fera mieux et il fera il fera plus large loolu nag bu ko waxee yaakaar na sénégalais yëpp war nañ ko sànnil carte bopp fas bu marron bi le dimanche 24 mars nga xam ne dafa ne xëdd dem voter ndogu génn jubilé